del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox. lan mooy doogi dugg waaye yow man may def sama émission nga ne doogi dugg waaye yow may ma ñeex waaye arrêté waaye da may buux dogal fii gaan dama fi émission lan yow da may buux yow yow xam nga ki ngay buux yow waaye yow kii waaye may def ay sama émission waaye dogal def la non non yow yow yow yow yow yow ay kii ay yow kuy man ngay buug yow kuy man ngay buug yow kuy man ngay buug yow lan mooy doogi dugg waaye yow man may def sama émission nga ne doogi dugg waaye yow may ma ñeex waaye xanaa waaye da may buux dogal fii gaan di ma fi émission lan yow da may buux yow yow xam nga ki ngay buux yow waaye yow kii waaye may def ay sama émission la dogal di def lan lan la non non yow yow yow yow yow yow ay kii yow ay yow kuy man ngay buux yow kuy man ngay buux yow kuy man ngay buux yow